boutique la solution mi nekk en face Walfadjri tey jii mooy euh, dernier numéro de la semaine itamit suñ fi jógee 16h30 lundi lañ fi ñëwaat ci kàttanu borom bi am nañu ndoxum siti ñoo man si tawat yi réew mi ak bitim réew bitim réew it suñu ay représentant nga foofa numéro ay téléphone yaa ngi foofa yow mi nekk bitim réew rek xoola ba écran bi boo gisee réew mi nga xamante ni tolloo naak sa fréquence nga ne ko naaj ba ne ko naaj woote sa am nañu li nga xamante ni am na fii waaye nag si régions yi amuñu ko si 46 département amuñu ko ñoo ngi fii à faj Walfadjri dong lañ ko am ndoxum siti mu lay faj ba nga wér si carte li nga ne noonu ba mooy lan hmm? hélas xam na li ma wax xam na ko non man boutique bi dugg ba nee ni naaj moo ma jaaxal numéro bi la waaw hélas xam na naaj numéro bi hmm. ah ok waaw non damaa jékki naaj tax comprendre naaj numéro bi ah. hmm, laaj laaj bi nga rek la rek te dem <laughs> mu ne. atia ñëwal. alaaji génnoon samay ah, moom ah, <laughs> kay nekku fi <laughs> de. <laughs> maa ngi fi de. Ah, sëñ Fallou sëñ Fallou Gumbale incha allah maa ngi ñëw léegi ci waajooji incha allah voilà am nañu ndoxum siti mu lay faj ba nga wér si kàttanu yàlla. hémorroïde si sunu borom da ngay moom moo xam si biir la nekk di la sonal wala mu nekk si biti di la sonal. estomac. estomac bu lay faj ba nga wér si kàttanu sunu borom. asma. asma it da lay ba nga wér si kàttanu yàlla. balodement si kàttanu yàlla da lay faj ba nga wér. tànk yu xar. tànk yu xar walay góom si kàttanu sunu borom. da ngay tàggoog mag wala xale euh, dem saw ñëw tëdd. raay mu bul bàyyi fenn foo yaakaar ni bokku ci da nga njëkkee ba xam ne ca la. mag wala xale buy saw. ci loo yëg karaw gi dagg di ruus. loolu moom dakk na ak bii di solution. solution plus. ñëw leen jël si ko yéen ñi gis mbaax muy metti fas gu lay tàqaleeg wan ni doom ak bënnu yaram yow mi nef nàmmal say tànk nga ñëw fii si biti solution. ñu dem ci góor gu néew kattan. bàcc mu leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ. Mhm. boo bàccee leerul demal nga faju ji leneen xamal ne du ñàkk mën a bàcc. d'accord daa sa laxasu. mi ngi noonu ñu dem ci numéro yi nga xam ne ci ngeen ñu jotee 78 lay doon 466 66 466 77. 426. top dina mi ngi leen koy defal noonu 426 66 77 426 66 77 wala 75 alaaji il faut. dañu daal di kii ngay joxe numéro jàmbur léegi. ah wax dëgg de.